L'eau multimédia moo leen di may émission assalafou ma al Qur'an. Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoires ci ay njëkk yu xarañ.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 mbokk yi nu ngi nuyu tey ziyaara tey jaajëfal bépp jëmm joo xam ne yaa ngi teewlu As-Salafou Mahal Qur'an foo ko mën a teewloo ci réew mi wala ci adduna bi nu koy amee ci kër gi di la maison du Coran ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy gunge ci jotaay bi muy loo multimédia ñuy jaay lépp loo xam ne jëm na ci jumtukaay yi ñuy jëfandikoo muy jumtukaay wane yi ordinateur téléphone ak appareil yi nga xam ne moom la ñu xam képp ku jëflante ak ñoom rek di nga yëg ne jëflante nga ak ñoo xamante ne wax dëgg fi dañuy jaay lu baax lu jaar yoon te yaa ngi jëflanteeg ñooñu alquran al karim numéro yi ci suuf ku ci woote rek di nga jot tey nag nekk sunu jotaay bu mujj ci jëmm ju tedd joojee nga xamante ne moom moo di Uwaysunil Qarani rahimahu rahman te yàlla may ñu li nga xamante ne moom moo di rammum yowm al qiyama te yàlla boolenu ci ñi nga xamante ne moom mooy shafaa gi incha allahu taala a shafaat yi nga xam ne moom mooy am yowm al qiyam yàlla na bunu ko yàlla buur bi subhanahu wa taala xañ bal yal na nu yàlla may sax ñu bokk ci ñi nga xamante dañuy ràmmu ay nit yóbbu leen ci aljanna ki nga xamante ne moom mooy damrat bna rabia damrat bna rabia dafay nettali mu jële ci ki nga xam ne mooy asbag bne zayd mu ne asbag bne zaydin moom moo ko li mu ne ko kaana uwaysun alqarani ida amsa yaqul uwaysun alqarani nekkoon na saa yu gontoo maanaam bu ngoon jotee balaa muy tëdd dafay naan hadihi laylatu ruku guddi gii ma rukuu moom moo ci jekk fa yarkau xatta yusbix mu jaamu yàlla nekk di rukuu ay eh, fa yarka ay yarkau wa yasjud ay yusalli xatta yusbix day nekk di di julli di julli di julli ba fajar laa ilaha illa allah mu gontu mu ne hadihi laylatu sujud fa yasjuda xatta yusbix day nekk di sujoot di sujoot di sujoot ba fajar xar mbokk yi xool leen ñi cër ba ñu amoon ca yàlla njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla buur bi subhanahu wa taala baaloon ko jéggaloon ko ay bàkkaaram ya jito ak ya mujj ak martaba ak daraja ba mu am ci yàlla waaye dafa doon naafila ba li nga xamante ne moom mooy ay tànkam néew wi xoole waysunil qarani yàlla may ko yàlla baal ko ay bakkaaram ba ku mu jéggalul yàlla yàlla baal la wàllu yu bu rëy gi waaye nga xam ne day xool guddi gi mu ne guddi gii de julli rek a ci jekk day jël guddi gi nekk di ko julli ba fajar yàlla nu yàlla may bii le tawfiq tawfiqul hidaya nee ne wa kaana ida amsa bi ma fi baytihi min alfadli min altaam nee ne saa yu gonto su génne li muy reere ba pare lépp lu des ci këram ci lu nu mën a lekk daf koy yenu dem saraxe ji ko est-ce que ñu ngi dégg wax ji bu baax a baax min alfadl ay min alziyaada walbaqiya ma yazdaadu an xaajatihi lépp lu yokk ca la mu war a mën a reere maanaam kan ci ñun tey jii moo pare ngir loolu la muy reere su ko génnee mook njabootam lépp loo xamante ne yokku na ca daf koy jël moom uwaysunil qarani daal di koy saraxe mu teg ci ne allahumma man maata juuan fala tuaxidni yàlla maa ngi lay ñaante di la seedeloo ne képp ku dee ci doomu aadama yi te fekk xiifa ko rey yàlla bu ma ko jàppe te bu ko toppee yowm al qiyaama mbokk yi kii njiitu réew kiidu président dama ne kii du ministre kii du député autorité te bal sax am na ci nitu yàlla yi ñu ñoo xam ne nee nañu uways ñaari yoon yoo xam ne amul yére bu muy génnee këram man maa dem may ko yére ndax mu mën a génne yonent bi toog na ci saxaaba yi mu ne leen am na ci sama xeet ñoo xam ne dañuy rafle ba duñu am yére bu nuy sol pour génni dem ca jàkka ja mu ne Uwaysu ne la qarani ci la bokk ak Furaat ibnu Xayaan kooku beneen jotaay dañ ci ñëw la ilaha illallah kii saa yu gontuwaan lépp lu ëpp ci xaalis ak lekk lu ëpp la muy reere daf koy jël saraxe ko njiitu réew wala yow mi yàlla dénk nga am àdduna saa yoo tiimatee sa ndékki ñu tegal la ko ci table boo xamante ne ay junni yu bari la suñ ko doon jënd nga tiim ak say doom ñuy lakk seeni tubaab ca palaat ba ku nekk di taamu lan ak lan la bëgg jànk yeeg bon yi di leen servir ngal la ci moment boobee na nga fàttaliku ñaata ay nit ñoo feebar ba ruy bu ñuy naan amuñu ko ñaata ci ay nit ak seen njaboot ñoom ñoo xiif ba danku ceeb ba nuy jox seen njaboot wala mburu bu fanaan sax ba ñuy jënde ca boulangerie ba amuñu njëg la ñaata meer ngay fekk ci marché marché bii ñu jaay ba sonn daal di dëpp nguufaanu ni ca siwo ba téeméeri dërëm yee ñuy yóbbu ca kër ga amuñu ko wallahi alladi la ilaha illa huwa wa sharafi l quran lii mu ngi am ci senegal gii jamono bi nga xamante ne yaa ngi ndékkee sa ndékki soo ko xaymaa rek mat na cinquante mille francs yaag sa njaboot am na ay jaamu yàlla du la wax jullit ay doomu aadama ndax réew mi ñëpp ay doomu aadama lañ nit sooy dimbali doomu aadama balaa ngay ñëw ci jullit koo xam ne amul lu muy ndékki saa yoo ñëwee nga gis ne bés bu nekk sa añu kër ay junni la ëpp na cent mille francs est-ce que xam nga ne ci biim réew am na ku amul mille francs Omar ibnul Xataab ba mu jiite doomu aadama yi da daan toog du mën a lekk ñu ne ko lu tax mu ne maa ngi xalaat gëléem gu nekk ca naj wa ca àll ga ca kaw ga amut lu muy lekk man la ko yàlla di laaj yawmal qiyaama njiitu réew est-ce que da ngay toog loolu ñëw ci sa xel nga tiim sa añ wala sa reer wala sa ndékki nga xalaat ne am na njaboot gu nekk ca ginnaaw Tamba añuñu tey jii yow la ko yàlla di laaj yowmal qiyaama yow Macky Sall nga xalaat ne am na ñu nekk ca frontière ga lu ñuy ndékkee amuñu ko yow la ko yàlla di laaj yowmal qiyaama ana ministre bi nga xam ne moom nga dénk biir réew mi am na ñoo xam ne amuñu lu ñuy lekk am na ñoo xam ne juróomi fan seen ndox dafa kuppe yow la ko yàlla di laaj yowmal qiyaama bu booba yàlla taxawal leen waqifuhum innahum mas'uluun yàlla dina leen taxawal laaj leen ko loolu ki koy xalaat dara du mën a dugg sa biir bi asalaf ma al quran inchaa allah suñu paree ci uway sunul qarani dinañ andi omar bu omar bun abdul aziz mu nekkoon njiitu réew bu mag boobee ñun ñu fàttaliku ñooñu nan lañ daan yoree réew yi laa ilaha illa allah uway sunul qarani mii nga xam ne amul dara lu ëpp lu muy reere daf koy saraxe mu ne yàlla képp ku xiif ba dee ngal la sooy lacce responsabilité bi yowmal qiyaama bu ma ca boole fii la sama doole yam def naa ko yemu ca wa tasaddaqa bi ma fi batli bi ma fi baytihi min alfadli min athiyaab lépp lu ëpp yére bu mu sol moom Uwaysul Qarani daf koy yenu génni kër ga dem saraxe ji ko mu ne allahumma man maata uryanan fala tuaxidni bi yàlla képp koo xamante ne dafa deet ngir ne amut lu mu sol ngir yàlla yàlla bu ma ko jàppe yàlla fala tuaxidni bi yàlla bu ma yenn responsabilité bi yére ya ma amoon te nit man ko sol génn naa saraxe ji ko xool tey jii jigéen ñi armoire si batan moo am léegi xam nga mag ñi wax jaaru waxande ak yu yu weñ yooyu lañ amoon am ñoo xam ne paan benn paan la ñu am ci yére amoon na ci mag ñi ñoo xam ne ñaari cuub la ñuy am ñaari yére sunu solee bii tey dañ koy demee xew ba ñëpp xàmmeeku léegi xoolal jigéen ñi yëre boo sol benn yoon mu feeñ tele dootoo ko sol xoolal ñun ñi man damay sañse rek di teg est-ce que ñu ngi dimbali nit ñi dafa am góor gu baax bu nekk ci réew mi imaam Mouhamed Moustapha Sall ma fàttali ko ñëpp ñu bàyyee ko xel daf ma woo bés mu dajale fii ci dakaar ay yére maanaam woo ay xaritam ak ñëpp ñu andi ay yëre ay dàll ah ay bool façon yu nekk yoo xam ne nit ñi sax doyewuñ ko dara mais ñu yóbbu ko ca àll ba ca ginnaaw Koungheul ca frontière Sénégal Gambie mais nga gis na ko nit ña soxlaa foofu andil nga leen lu nekk ngal la ñu def acte yu mel noonu te bàyyi coow li te di ko sellal nañuy dajale yu mel noonu duggal ko suñu oto dem ci village yi jox ko nit ñi soo duggee ci village yi nit ñi soxla nañ ko dajaleel sa njaboot la ñu solatul ak yëre yu baax yi parce que lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu li nga bëgg moom ngay jël saraxe ji ko te bu kenn yëg yàlla buur bi subhanahu wa taala fay la yiw mbokk yi uway sunil qarani abdullah ibni salama moom mooy nettali mu ne dafa am benn bés ñu demoon xare ji ci li nga xam ne ardu azrabijan fi axiri xilaafati omar nee ne ba ñu demee xare ji ci yoonu yàlla xoolal de nitu yàlla la de ab sëriñ la sëriñ piir day fanaanoo julli di jàngale alquran nettali naa leen jotaayam ak harim ibnu xayyaan di saraxe alalu boppam ba yére bi yére budul yére bi mu sol mu saraxe ko lu ëpp lekk ci këram mu daal di koy joxe waaye nag mu dem xeexali lislaam ak dooleem ba ba muy jugee ci xeex googe nga xam ne mooy ardu Azerbaïdjan mu daal di feebar ci yoon bi Abdullah ibn Salama mooy nettali nee na Uways daal di feebar bi mu feebaree ba moom attanatul naaj wi feebar bi sonnal ko bi ñu ko wàccee ci àll bi rek mu daal di daanu dee mais li ñu jaaxal fa mu daanoo rek mu dee dañoo wacc rek fekk bàmmeel bu ñu gas ba noppi ci àll bi ci diggu àll bi fekk bàmmeel bu ñu gas fekk càngaay yu tege fekk ndox mu tege ci àll bi kan moo ko gas kan moo andi ndox mi kan moo andi càngaay mi ci àll boobe nee ne fa xasalnaahu mu nee ne fa xasalnaahu wa kafannaahu wa dafannaa ñu daal di koy jël daal di koy sang daal di koy sàng ci càngaay googe nga mu fekk ci àll bi ñu daal di koy rob nee ne bi ñu ko jullee suul ko ba pare bi ñu départ pour yéegaat suñuy war waaye départ am ñu ne déet nañu wuutal bàmmeelam màndarga nga xam ne saa yi ñu ñëwaatee ñu xàmmeeku nee na bi ñu geesoo jubal ci bàmmeel bi fala qubuura wala athara gisatuñu bàmmeel gisatuñu sa jeexital gisuñu fenn fa ñu suuloon bàmmeel fañ ko suuloon gisatuñ ko la ilaha illa moo tax ndaw yi nañu yaatal seenub jàng nit dangay yaatal sab yër bopp su feesee doo bari looy weddi waaw léeg ma dégg ci sama demuk turandoo ak yeneen ak yeneen am na yoo xam ne da nga ciy maandu sa xam-xam su fa àggul lii ma leen wax mu ngi ci xulyatul awliya wa tabaqat al asfiya bu cheikh abu naim al asbahani xabar bii ma leen abdullah ibni salama moom moo ko nettali kon kii moo nekkoon uwaysun al qarani allahumma ma jamaatana bi uwaysin fi hadihi dunya fajmacna wa iyahu fi jannatin caaliyatin daari salaam qutuufuha daaniya ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته L'eau multimédia moo leen di may seen émission Assalafou Mahal Qur'an Nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia